نفسي وديني ثم لي والولاد ومسكني لك وديعة الأباد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu ci turu daayira bi tudd Nafsi wa Diini di njabootu Cheikh Mouhamadul Bachir ci teewaayu sëriñ maam na Mbakke ak ay rakkam ñuy fàttali loo xam ne xam nañ ne sax kenn fàttewu ko waaye di ko fàttali dadul mën a ñàkk muy màggalu poroxaan gi nga xam ne mi ngi ñëw te ñoom ñi nga xamante ne ñooy dalal gan ñi ñuy soññ seen bopp di soññ mbooleem bokki taalib yi nga xamante ne ñu ngi ci liggéey boobu kenn ku ci ne gën a góorlu ci wet gi nga féete loolu moo waral seen jataay bii ngir soññe soññee rek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 assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp ci turu nafsi wa diini gi nga xam ne moo lëkkale mboolem sati sëriñ basiru yi di nuyu ñëpp di ziar sëriñ bi bu baax Cheikh Mahamadou Muntaxa mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëriñ Tuubaa di ko ñaanal yàlla sa borom may ko mu gën fee yàgg lool te gën a wér di ziare njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp eh, di ñaan suñu borom àggale seen yéene ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa eh, di fàttali rek bis bi nga xam ne moo dëgmal si bis bi mooy bis bi nga xam ne moom la ñu baaxoo defal soxna jaara fii fi Poroxaan eh, di alxames ji ñu séenu day ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu fas bi defar soxna jaar nañ ko daan defee muy loo xam ne tàmbale woon na ci nekkuk Cheikh Mouhamadul Bachir jaar ci loxo yi Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir ba tey ji yàlla def mu nekk ci loxol Cheikh Mouhamadul Mountakha kon muy bis boo xam ne dëgg la nañ ko waxee kenn fàttiwu ko waaye nag waxtaane ko itam lu baax la te itam fàttali gi wàññiwul dara muy bis boo xam ne jullit ñëpp a ko bokk ndax soxna jaara ñëpp ko bokk sëriñ Tuubaa ñëpp a ko bokk di bis boo xam ne itam dañu ciy woo ñëpp ñi nga xam ne mooy njabootu Cheikh sëriñ Tuubaa di ko tàmbali kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh fi kenn ko tàmbali njabootu soxna Faati Jaa mi nga xam ne mooy taaw sëriñ Tuubaa ba soxna may moo tax suuxraa mi nga xam ne mooy caatum sëriñ Tuubaa bàyyi wuñ ci kenn ci diggante bi di ci woo itam mboolem seexi sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoom la seeni kilifa àndaloon ak sëñ Tuubaa ak seeni waajur mbaa seeni maam ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp di ci woo bokki taalibe yëpp itam di ci woo mboolem njabootu lislaam gi nga xam ne ñoo nekk ci biir mi mbaa sax ñu nekk ci bitim réew waaye di ci woo itam autorité yëpp tàmbalee ko ci président de la république ak mboolem ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk boobu la liggéey di ko sant bu baax di ko ñaanal eh, mu di ko ñaan mu mu yombal taalibe yi seenu dikk ak seenu dellu ci seeni yóbbal ya nga xam ne moom la yor di fàttali itam préfet bi nga xam ne moo fi nekk di ko ñaan mm, taxawaay bi waaye nag rawatina eh, taxawaay li nga xam ne moo amoon daaw ñu di ko ñaan mu gën cee bàyyi xel bu baax te mooy oto yi ni fi ñu doon wàcc ni ñi ni mu soree ba nga xam ne nit ñi doon añ ay jafe-jafe ci agsi ci biir dëkk bi léeg-léeg ñu dox ba sonn mu metti ci ñoom lool te seeni i bagages itam daawuñu ko àttan loolu itam mu bàyyi ci xel bu baax a baax noonu fàttali itam conférence bi nga xam ne naf si wa diini taxawaloon na ko daaw tafas ko yéene amalaat ren ci ci mbaar mi nga xam ne moo nekk ci wetu jumaa ji fas yéene waxtaane mbirum sëñ tubaa ak ndono li nga xam ne moom la sëñ tubaa bàyyi moom la ñu sëñ bàyyi ko ci jamono te bàyyil ko fi taalibe yépp ak bokk yi di ànd ak benn exposition boo xam ne itam dañ ci xamle waale soxna si ci boppam waaye li ci xamle waale daara ji xam ne moom la ñu sos fii ci Poroxaan te muy daara joo xam ne ay nangami téeméeri maam jaara lu ma juróomi téeméeri maam jaara ña fa jamono yi ñu toll ak fanweer ak ak juróom-ñaar ña nga fa di ñu leen saytu ñu leen taxaw te yàlla dogal Cheikh Mouhamadou Moustapha sosoon ko waaye bi mu demee it mu bàyyee liggéey bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mu di ko taxaw taxawaay bi nga xam ne moo gën a rafet kon daara ji sosin wa ak doxin wa ak la nga xam ne moo fa jot a génn ci ay njariñ loolu lépp itam ku ñëw ci exposition bi itam incha allah da nga fa fekk di fàttali it ne nafsi wa diini mooy kuréel gi nga xam ne moo am mboolem sëti sëriñ Basiru yi ñu yeesal seen pastéef di yeesal seenu taalibe ak di soññuwaat bu baax ngir taxaw seen kem kàttan ci bis bi nga xam ne bisu soxna jaar la fas yéene taxaw Cheikh Mamadou Mountakha ngir mu gën cee am ndam bu baax ñi nga xam ne ñoo fi ñëw itam gën leen noppal gën a wàññi seeni i coono ci seen lépp loo xam ne mën nañ ko ci seen kàttan ko ñaan taalibe yëpp itam ñu ànd ak ñoom taxawaay boobu nga xam ne moom la ñu am def ko euh, mësuñu ko bàyyi sax waaye nag da ne dañ ci soññ ci fàttali it bi ma fa mu daan nekk ci kër soxna jaara ga ca nekkukaay ba nga xam ne moom la fa daan nekk waxtu nekk ma nga fa te jullit ñëpp ak taalibe yëpp maa xam ne ñoom rek la fay nekk Euh, ma nga fat leen nag ci lépp loo xam ne mooy seen yitte ak seen siyaar te kon mm, képp koo xam ne ñëw nga fi te bi tax laa jóg te yàlla dogal moom it mooy ki woote bis bi kon ku fa ñëw da nga koo fekk lépp loo xam ne soxla nga ko ci moom itam wala lépp loo xam ne bëgg nga koo ante moom mbaa bëgg nga ko jëflante moom it ma nga fa de la nekk te jërul jaar ci kenn jarul jaar la yet ci kenn ndax ma nga fa di la xaataloo rek ma ko fa bàyyi di fàttali it nag mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo daan taxaw ci liggéey bi te jàppale sëriñ bi naka jekk waxtu wu nekk ñoom itam ñu bañ a fàtte seen taxawaay ñoom ñëpp ci lañu bokk ku demee sëriñ Xaadim Jóob bi ma nga ca biir waaye ku demee sëriñ Daam Soo ma nga ci biir ku demee nañ Njaga Sekk mi nga xam ne mooy yor yi tarbiya yi ànd ak ñoom ci boobu la liggéey it ñu ngi leen ñaar ñu gën a yokk seen farlu gën a yokk seen taxawaay daara yi nga xam ne mooy daayira yi ñëwit yëpp itam kenn ku nekk fa nga daan dem na nga na ko daan defee nga defee ko waxtu woo ñëwee da nga fa fekk ñoo xam dañ leen taxaw ca carte yi nga xam ne moom la ñu war a am na mu war a demee itam dana ni demee di ñaanal sëriñ bi dellu di ko ñaanal nag yàlla may ko ndam ci yan bu diis bi nga xam ne yanu na ko ci kër Seexul Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim di di di di ko ñaanal di ko ñaan itam mu dolli noo ñaanal ñaar bokki taalibe bi yëpp yàlla may leen tawfeex ñu dem ci jàmm waye ñu dik poroxaan ci jamm waye ñu delu seen kër ci jamm ta dara bañ leen a dara bañ leen a eh, yakal seen yoon yalla defal ñu ko dañ ko bëgge te yalla may ñu itam ñu delu di fekk ay déwéni déwén te ya ñu ko nangul lepp lo xam def nañ ko ci itam mo xam ci alal la ba ci coono ba ci aw ñak ba ci yene ba ci ak jamm lepp rek yalla booye nangul nu ko ci barke seigne touba ñi ngi nuyu ñepp di ziar tay balu ak itam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جريف سرين بي وخنا وخ دي ماتلين ليب ني لين فاتلي ن ماغرك لا 22 فبراير واي كونفرنس بيغا خاني نسيو دين دان كو تي ديف لا 21 21 اير تي غودي لاي دون كين باغ كو فاتي ني فاتلي بوكي طالب يي نيو نيوم تام نيب ني بايي خيل خامني كو جوك دي ساكو جي لو باخ Eh, dang koy tek ci xam ak fas yéene la ngay sakku nga man ko am ndax mak lu ko tax jog da wara xam nam koy sakko ndax poroxan barab bi ak ten bi rek la ci barkelo mbollem di ngeen gis ci all bi ay nit difa nek ci tiaxan ñu xamne lolu yoonu kilife yi neeku ci te gënalu leen ñu bàyyi ko xel bu baax yeen ñi nga xam ne da yore ngeen di def ndank ndax wax euh nit ki jog ngir mbir mo xarin da ca bëgg doli dolli ko nga indi ko ca ak wàññeeku lor nga ko lor nga jabotam kon bayyi leen xel bu baax yoon wi dikk ci jamm delu ci jamm nu ñepp mom bëgg tel ko yalla defal waye nak da ngeen gor gor yalla fekk ci jere ngeen jëf